ci nekk indi ci say leeral ñu nammeeku benn révélation boo xamante ne kii di Tunkara moo toog foofu sa euh, Amérique New York dal di def ay révélation xamal ñu ni que li nga xamante ne moom mooy le projet porté par Ousmane Sonko daf ci am wàll daf ci daal di jël alalam daal di ko ciy teg di financer ay li nga xamante ne moom mooy ay cocktail Molotov di financer ay booy ñuy taali ay kër di financer ay booy ñuy jënd li nga xamante ne moom mooy essence di lakk ay oto di euh, saccager li nga xamante ne moom mooy euh, suñu Sénégal moom nag ci boppam moo toog daal di def def révélation Yoyulé. vidéo bi su baxé ngeen jox ñuko wa waa ñu déglu kàddu yi nga xamante ne kii di Tunkara moo financièrement j'ai mis plus de 1 million de dollars dans ce combat dans des manières différentes dama bëgg ngeen xam xam ngeen luy 1 million de dollars moy 600 nangam millions de francs CFA financièrement def naa ko ci combat bi ci diggante jëndum ti sétak jëndum ndox ak jëndum essence dimbali ay li dimbali ñi manam financé ay xeex financé ay cocktail molotov lepp def naa ko man j'ai tout fait te xaaruma ci dara déglu leen ma de j'ai tout fait pour que projet bi am ndam man don de soi laa wax lépp lu ma def c'est le don de soi pour la patrie c'est le don de soi pour la patrie de vous combat un million de dollars de mes propres sous ci jëndam ndox jëndam t-shirt jënd garab jënd ordonnance supporter ay famille jënd cocktail supporter combat ay combat te nee naa Amna ay nit yu ko cédé yo xamné bis tukki man ay nit xam naa ñu may dégg ay nit yu jege jégué lool grand créé nañ groupe dañu soxla cinq francs Madame, dem 500 500 francs tok goudi benen groupe woma grand ñun créé nañu li, nangam nangam Fi 200 000, 500 000 millions nangam billahi wallahi j'ai même envoyé des millions des millions manam tok na ay moment yo xamné ngeen ko de vie, ni nitu Antoine Diomine... euh pasteur jox partir de là-bas muy financé te du deug c'est pas vrai amna ñuko xam amna ño xamne len documentaire dina livre dina di gis def dama ko documenté j'ai dépensé presque un milliard ci combat te ci kenn il faut ngeen arrêter man su ma doon liggéey dama leen di jox exemple rek su ma liggéeyoon ci consulat dama leen di jox exemple bu ma liggéeyoon ci consulat c'est dépassé un milliard boko xeyma ci suñu xaalis mu nek ay millions yi millions mu dal di koy euh, daal def ci li nga xamantene moy mooy cocktail Molotov bu ñu waxee cocktail monotof dañuy fateliku ñi nga xamantene dañ cee dal di ñàkk seeni bankal essence yi di tal auto jàmbur yi tange ñu li gis révélation bi mom ci bopam mom mi financer mbir yi moo toogaat di yëgal sénégalais yi lii moo nekkoon euh, euh, participation ci projet bi nga xamantene c'est porté par Ousmane Sonko. sa xalaat ci mbir ngay wax nii hmm. si turu kan lay wax turu Sénégal li mu financé fan la ko financé ci Sénégal hmm. ñan ñoo ko doon woo pour de dañu soxla nangam du ay sénégalais hmm. ci ban régime la bokkoon mooy ñu nekkoon opposition tey ñoom ñoo nekkoo pouvoir ñoom lañ jàppoon fii ay amnistie forum civil ne ay détenus politique lañ jàpp dañoo wax seen xalaat tey moom taxaw na def ay aveu donc on a qu'à assumer sénégalais yi ñoo ko def héros mo doon def lu bon de yi di ko tàcc di ko donc euh, ñi mu àndaloon démb. Mhm. la yàlla teg ci bopp ña faatu ci régime ñoo euh, bi ñu nekkee ñooñu nekkee opposition faatu moom mi toog di ni def na un milliard de un milliard un milliard yooyu mënoon nañ hôpital un milliard yooyu mënoon nañ ko defar benn usine ba doon régime pour amuñu xëy amuñu nangam ñu fay un milliard je crois que amna fenen feneen fu mm-hmm. donc euh, du Guinée du Mali du Gambie ce sont les Sénégalais ñoko ko déglu Sénégalais la doon jox xalisi Sénégalais yi ñoo doon ay doomu Sénégal Sénégalais yi ñoo ray ay nitu Sénégal cocktail molotov yi ñu sanni ci bir Stata fi ay Sénégalais ñoo ci dé et c'est dans les yeux des Sénégalais barki dembu ay Sénégalais ñoo nekk New York taxaw diko tag dinaan nañ ko jox consul Sénégal bu New York su dee Sénégal foofu la toll c' est leur problème. Hmm. point final. on a ce qu'on mérite. d' accord Abdou Nguer noo jàngatee kàddu yi nga xam ne Tunkara yëkkati na ko. waaw Ousmane Tunkara day mook ay mbokkam ànd doon taal Sénégal moom nag moo wax parce que dafa mer ndajem bandi nii la su ngeen demee ci séddoo bi buñ la joxul rek faaw nga génn sa jikkoy bandi wax. noonu la def mais moom rek moo wax de mais Ousmane Sonko mii bu la waxoon li mu def sénégalais ñooy dagg ay yat fekk ko pale wala petit pale ku ci nekk am na loo ci def moom nag dafa jëfur mu wax bis dina ñëw ñeneen ak ñeneen jëfur wax. Hmm. du lii kese la wax n'est-ce am na yeneen ak yeneen yu mu wax te yenn yu mu wax man am naa ci preuve ndax bu dee li mu wax ci cor ci maxu Mandela. Hmm. jëkkëri coro Mandela. Hmm. bu ngeen demee Sénégal set taxawoon naa fa ma artu leen ñoom ñaar. artu leen mooy ba coro demee di topp kaa bañ jàpp ko dugal ko ci kaso bi taxaw naa ne leen coro ngeen gis ne moo def lii mais jëkkër jee ko gën a doy waar jamono boobu nit ñi xamuñoo fu may wax yow mi yaa ko doon waaw mu ñu demee Sénégal set ci seen i vidéo ci seen i archive nga fa fekk sama wax jii man mhm. leen coro lañ jàpp tey ngir dafa dem di caricature ay nit mais maxu moo gën a doy waar coro tunkara dafa ñëw confirmer la mu ne Serif ak maxu ñoo ko doon defal loolu ak Pape Alé Niang te man nag ba ma koy wax xam nga Tunkara du sama xarit. Hmm. Sénégal xam du ma wax ak moom. la ma doon wax daaw la woon Tunkara ñëw dëggal ko ren man samay wax jallu muus la gis nga Sénégal fii. Hmm. buñ ci deful attention ak régime bi yàlla nañu yàlla yërëm kii nag ay waxam ma mënu ma ci sori ko man loolu rek laa ci am lu may wax. lu tax moom moom ay waxam. <laughs> mënu ma ci sori parce que ku kuy taxaw ne man tas naa siy jàmbur ci ay fen. def naa nangam loo xam ne ay fen la. kooku jëratul wax parce que suñu borom tabaaraka wa taala nee na sëy bu ñu takk. Mhm. ci farata ak na yow ngay def say pexe ba tas ko. àdduna dafa la tooma fi lu tax nga war a dem àjjana. kon mhm. kii safara la jëm kon mën nga paase. Mhm. safara la jëm ginnaaw loolu leex dinañ dañu am réaction sénégalais yi ndax nag li mu wax dafa nekk ay kaddu yu doy waar